Thierno Alassane Sall xamle woon noonu la ko defee daal nay yóbbu recours ca conseil constitutionnel ngir fësal double nationalité bu Karim wàdd nekk nag candidat ci présidentiel bi bu ñu sukkandikoo ci ki ko teewal jàppaluñu ñu mer benn yoon doomu Ablaye wàdd dëgg rek moo leen tax a jóg. du ñu nangu Sénégal ki ko war a diriger am beneen président ci beneen réew déedéet ndax kooku dañ ko war a dénk 7000 milliards kooku dañ ko war a dénk suñu kaaraange réew. kooku dafa war a jiite dix-huit millions de sénégalais mënoo nekk président de la république du Sénégal yow sa bopp nga am président de la république te Karim wadd ci kaaboo boobu la nekk. constitution Sénégal ni mu tëddee dafa xamle ni ku amul nationalité Sénégal mënoo samp sa ndënd ngir nekk njiitum réew mu mel ni nag loole Karim wadd mënu koo wax. bépp mbindeef bu am nationalité française boo ci bëggee génn da ngay def sa demande président de la république mooy signé décret bu signé décret bi ba pare am na ci site bu ma koy publier 2016 ba 2023 ñun ñu dem gëstu ci site boobu parce que bu ñu fàtte nag Karim Wade dafa waxoon sénégalais yi ne renoncé na candidat renoncé na à sa nationalité française 2018 2016 ba le 15 janvier démb liste boobu Karim Meïssa Wade bokk ci. ba léegi nag ñaar fukki candidat ak benn le conseil constitutionnel daal di jàllale gannaaw parrainage yi ñi dugal seeni recours buñ ko jàngatee ba pare nag ndaxam Karim Wade dina bokk ci yëf yi ba léegi loolee nag lu jar a laajte la.